bëgg. Amadou Ba man maa njëkk a choose avant Macky Amadou Ba boo xoolee parcouram am nga xam ni kii ku mën a yorum réew la war a doon. soo xoolee jëmm Amadou Ba xam ni kii kilifa la ku mën a yor réew mi day yeggali nag. day yeggali li li président Macky defal sénégalais yi tegal leen ko moom la Amadou Ba ñëw di ñu ko yeggalil mu landi ci sunu réew moomu mu dolli xam-xamam man maa njëkk a cuus Amadou Ba avant que Macky Sall di cuus. Euh, Mame Boye Diao daf ma déclaré daf ma déclaré guerre. bu ko neexee mu laaj Sénégal moo ko moom yëfam la fa la juddoo waaye dafa taxaw ni Sonko xaritam la te man ku xaritoog Sonko ci jamono yi nu toll ak jamono yee di ñëw sama noon ngay nekk noonu Sénégal ngay nekk dañu fekk Mame Boye Diao dafa fekk dafa suur nag dafa suur dafa yor xaalis moo tax muy laaj sunu réew amul xam-xam mais dafa suur dafa yor xaalis ñu bëgg nag mu jël xaalis boobu mu teg ko delloo ko sénégalais yi te mu maaseeg nit ñi mënut a nekk président Sénégal amul xam-xam bi mooy Mame Boye Diao 2015 maa ngi moom ñoo duggandoor euh, APR fan la jëlee 60 millions yu muy joxe candidature mais nekk dépôt caisse dépôt mais mais mais mais loolu taxul nga ñëw di laaj sunu réew. mais amul xam-xam dafa am Sénégal dañu dañu dañu dañu yab dañu yab muy opposition bi di am ñuy génn ci sunu tim dañu yab Sénégal du golo gune nga koy jox borom xam-xam lañ ci soxla ku yiw ku réglé ku nekkul bandi ku nekkul caga ku nekkul wuyu ak bandi ak trahir sunu mayin nii ak brainwash askan wi nañu arrêté opposition ak pouvoir laa wax nañu arrêté di laaj sunu réew mi genn wàll gi amuñu xam-xam